mbokk yi alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñi ngi dajewaat ci suñu téere bi di minhajul muslim war a dal tey li nga xam ne mooy ahkamul janaiz la nga xam ne mooy atte yey aju ca néew ya ñu war a jël almadatu saaniya fi ma yanbaghi min wafaatihi ila dafnihi mooy lan mooy war nit ki su mbokkam faatoo fam faatoo ba fam koy dencee naam ci waaw xam naa ñu xool page deux cent vingt cinq ci ñu yor mool bu bees bi ñu ngi sant suñu borom bu baax di fàttali rek ne mbokk jullit salu saw dàll dem ca place ba ñuy jàngale diine mooy naafile bi gën a màgg booy naafile ci kaw suuf moo gënoon nga toog di julli moo gënoon nga di def lu mu mën a doon xam-xam mooy li tim lépp ndax lépp balaa baax xam-xam a koy lal na doon loolu jihaad la na doon loolu aj la na doon loolu lu mu mën a doon xam-xam moo ko lal looloo tax ba ki jël yoon di ca jàngi xam-xam xamal ne yonent bi nee na ma nga solu ca yoonu aljanna yal na yàlla jagleel ñu ko su dee bokk nañu gisit ñu xam ne tey jii mooy ñaar fukkeelu fan ak juróom-ñett ci li ñuy tudde jumaadal ula kon suba mooy sént bu jëkk ci jumaada saaniya sunu maam yi di ko tuddee maamu koor bii ñu nekk nii mooy rakkaatu gàmmu bii ñuy sént mooy maamu koor tey jii di tombeek le 2 janvier ci 2022 su dee bokk nañu gis kon mu ne fii ma yanbaghi min wafaatihi ila dafnihi lan mooy war ci ab jullit bu dee daa faatu ba baa ñu koy denc la ca jiitu al i'laanu an wafaatihi mooy nañ yëgle déega yustahabu an tu'lana wafaatul muslim sopp nañu dey ñu siiwal faatub julit fi aqribaa'ihi wa asdiqaa'ihi wa saalihiina min ahli baladihi ñu siiwal ko ci ay jegeñaaleem ak i xaritam ak ña baax ca ñooñi dëkkam li yaxdaru janaazatahu ngir ñu dem di teewe lii di jullee gën koy jullee ci néewam ba faqad naa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama anajaashiyi linnaasi lamma maata fi saxiix yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day keroog ba najaasi faatoo siiwal na ko ci nit ñi kama naa zaydan wa jaafaran wa abdullah ibnu rawaha lamastushhidu noo nit la yëgle tàggee kii di zayd ak jaafar ak abdullah ibnu rawaha ba ñu faatoo ca la nga xame ne ni mooy seen jihaad ba wa innama nayul manhiyun anhu bu dee tàggee ga nga xam ne dañ koo tere huwa ma kaana fi shawaari mooy la nekk ca mbedd ya wa ala abwaabil masajid ak ca buntu jàkk ya bi sawtin murtafiin ci kaddu yu ñu kaweel wa siyaaxin yu ànd ak yuux ya fa masula zalika manhiyun anhu shar'an du mel noon day dañ koo tere ci sharia waaw mbokk kon fii day wax rek bu dee jullit daa faatu dafa soxla mbokki jullitam ñaanal ko looloo tax ba kon ko mën a yëgal ci jege ñaale yi ñu yëgal ko ko bala ñu koy denc loolee nañu xam ne loolu lu lu ngënil la rawatina nag xaritam ya ak nit ñu baax ña ndax heure boo xamee ne jullit faatu na yow mi ko yëg danga ko war a ñaanal yàlla la gën a néew mooy allahuma axfir lahu warhamhu te ban ñaan la yàlla di nangu yàlla moo ko xam kon loolu dañ ko war a siiwal ci ay mbokkam ñu waajal ngir mën a fekke fañ koy jullee rawatina li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne amul benn jullit buy faatu mu fekkee jullee ga ñeen fukki nit yu bokkaalewul yàlla dara lu dul yàlla dana ko jéggal yërëm ko am na beneen xadis bi wax ne mbooloom jullit boo xam ne mat nañ téeméer lu dul yàlla dana ko jéggal am buy wax lu mat ñetti sàppe almuhim ñu yëgle ko mi ngi noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ne avant téléphone ak leen di xew suñu borom a ko doon xamal looloo tax ba Najaashi faatoo daf ne saxaaba yi yàlla day jël na jaam bu baax ca fa mu nekk ci Éthiopie ànd ak saxaaba yi mu taxaw ñu jullee ko julli ku fi nekkul muy salaatul gaayib loolu la yonent bi def ak Najaashi lu mel noonu it la defoon keroog ba mu yónnee kii di Jaafar ak armée ba mu àndaloon bañ demee ca armée ba Jaafar daanu Zayd ibnu Alxaarisa daanu Abdullah ibnu Rawaxa daanu te mooy ñetti capitaine yi mu name woon ba ñuy dem Zayd moo jiite armée ba mu ne bu daanoo na jaafar jël drapeau bi bu daanoo na abdullah abdu rawaxa jël drapeau bi ca lu bari bu masaan wax bu daanoo rek day daanoo waaye sahabatul kiram ni suñu ndawi tey bëggee shahada shahada ci arab mooy diplôme ñoom noonu lañ bëgg woon dee fi sabilillah loolu tax keroog bañ dañoo ci mottata ci xare bu metti buñ doon xeex ak romain yi ca la ñu dem noonu ko yonent bi alayhi salaam waxe woon ñu ki nga xam ne mooy Zayd ñu rey ko rey Jaafar rey Abdullah ibn Rawaha te la yéega ca ko min baram ba sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla day xamal na ma ne Zaydu daanu na Jaafar daanu na Abdullah ibn Rawaha daanu na yàlla jël na benn jaasi ci jaasim mi ngi indi armée bi muy sayfullah di xaalid ibnu walid loolee yàlla ko ko xamal ci kumpa la ci doon jubluwaay bi rek mooy nit ki bu faatoo ñu wax ko nit ñu baax ni jëree ñu ñaanal ko ku mën a teew si it daal di teew si bu dee dañuy jël mu ne nag loolu kon dara nekku ci dafa am nag loo xam ne arab yi dañ ko daan def mooy bu kilifa gaañoo dañuy am ay ñu ñuy yónni ñu nekk ci mbedd mi alkaange wàcc na tawaay faqir yi fu ñu jëm tawaay doxande mi fu ñu jëm diw dee na kasa wa kasa loolu it mbokk des fois ñun ñu koy def ci beneen forme ko xam rajo yi bu ñu daan tàgg rajo Dakar da ngay gis benn kilifa bu faatu pendant un mois ñu koy tàgg yépp ko tàgg tàgg bi ki koy indi mooy diw tàgg bi ki koy indi mooy diw aw ni faatu na nit ñi xam nañu faatu na beneen tàgg bi ban mooy njëriñam loolee kon la lislaam tere doonte ne lu mel noonu dina ci ñëwaat amma bu dee ñaareelu bind bi mu ne tahrimu niyaaha islaam araamal na niyaaha ca mooy jooy yu ànd ak jàmbat wa jawaazul bukaa daganal jooy yoo xam ne ay rangoñ kese lay génne yuhramu nawxu wa suraaxu ala al mayt araamal nañ nekk di jàmbat ak di yuuxu ci kaw ka faatu li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam inna almayita la yuazzabu bi bukaai alxay yonent bi nee na aji dee ji day daañ ko mbugal ca jooy ya nga xam ne kay dund man ka kay jooy wa qawlihi man nuyiha alayhi fa innahu yuazzabu bima nuyiha alayhi yowma alqiyaama képp koo xam ne ñi ngi nekkoon di jàmbat gannaawam di yuuxu ku mel noonu day loole dañ ko ci mbugal yowm alqiyaama wa kaana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaxuzu albaya ala nisa daana jël jaayante ak jigéen ya an laa yanuxna te bu ñu nekk di di jàmbat jamono bu ñu deeyee qaalathu umu atiya radiyallahu anha fi saxiix umu atiya moo ko wax ci wax ju wér wa qaala sallallahu alayhi wa sallam inni bariun min alsaaliqa man day deñ naa ca kay yuuxu ci ak deem walxaaliqa ak kay wat ay karawam ngir dee wa shaaqa ak kay xotti ay yéreem ngir dafa deele mbokk da ngay gis ne lu bari ci ceddoo alhamdulilah soo demoon ci kaw gi ma nga fa ba tey nit ñi nag des fois seen civilisation dana tax yu bari ñu denc mais da ngay gis nit ki bu faatoo waa kër gépp dengoo di yuuxu su ko defee wuy fu ma jëm wuy alko nañu wuy nangam wuy nangam loolu mooy niyaax mooy wone kii dee njëriñ bi mu taxee woon ci kaw suuf ñun fu ñu jëm gannaawam yeneen ci bari soom nee na loolu dañ ci mbugal néew bi borom xam-xam yi am ixtilaaf ci mbugal boobu nu muy demee ñu bari ci ñoom dañ ni mooy ki nga xam ne da koo dénkaane woon ca arab yi dañ ko daan dénkaane ñoo xam ne ñoo leen di jooyal dañuy gis ñoo xam ne bu ñu amul ay jooykat dañuy dem luy ay jigéeni caameen ñu ñëw ci kër gi jooyal leen loole bu dee loolee moom la chaque chaque amu ci am ñu ko firee ni daka daan gis ci njabootam ci terewu leen ko su bu dee buñ ko fa defelee daañ ko mbugal ci loolu am maa nag koo xam ne bëgg ko woon daana ko tere su ko njabootam day def gannaaw it loolu moom yoonam nekku ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam heure bu daan jaayanteeg jigéen ñi bokk na ci lam la suñu borom wax suratul mumtahina du ngeen njaaloo du ngeen sàcc du ngeen rey seeni doom fa muy wax ne wala ya'sinaka fi ma'ruf du ñu la moy ci njëkk bokkoon na ca mooy du ngeen def niyaaxa mooy nit di dee ngeen di jàmbat gaa yi nga ci nettali benn histoire bu reetaanlu ñu ne yonent bi dafa am jigéen ñu gàddaay ñëw léegi mu mu mu mu mu jaayanteeg ñoom ne leen nag nit du dee ngeen nekk di jooy di jàmbat boo demoon tubaab bi dañ ko tuddee des pleureuses nee na benn soxna caamen rocc loxoom yonent bi na ko lan la mun na ko yow yeelu ne may ma rek ndax diw ba sama bàyyi gaañoo daa ñëw jooyal ma damaa dégg nag bi muy ñëw bàyyam deen xaaral ma dem rek jooyal ko ci ñëw jaayanteeg yow dégg ala kulli xaal mbokk loolu dañ koo war a bàyyi xel mooy islaam soppil nañu leneen lu dul loolu te loolu la ñuy nar a jàng ci kanam amaa ni dee ngay yuuxu yonent bi mu ne deñ naa ci saalixa boo demoon suñu àll yee da ngay gis kër gi nekk ak apes bu fa nit dee yuuxu yàlla koy woon en suñ caam ba yuuxoo ndoo ñëpp yuuxu ñëpp daw ñëw yeneen ci mu ne ku mel noonu dañ naa ci moom da ngay gis ñoo xam ne dañu daan jël seen karaw yi di xucci di sànni ñii di watu pour wane ne dañoo am naqar am tiis gis ñoo xam ne dañoo xotti seeni yére yeneen bi nag alayhi salaam ne képp ko deele di yuuxu wala di watu wala di xotti ay yéreem ku mel noonu moom deñ naa ci moom mi ngi noonu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon bu dee ne dañu jël waaw wala bokk mu ne ba tey amma albukaa'u fala ba'sa bihi bu dee jooy rek tuura ngooñ loolu moom dara néewu ci li qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lamma tuwaffiya waladuhu ibrahim ci waxi yonent bi ba doomam ja ibrahima faato inna al ayna tadma'u ay waay bët day dana nekk di génn rangooñ wal qalba yahzanu xol bi it day dana tiisu wala naqulu illa ma yurdi rabbana waaye nag duñu wax lu dul loo xam ne suñu borom yàlla da koo gërëm wa inna bi firaqiqa ya ibrahima la mahzunun ay waay ibrahim teqali koo giñ nar a teqali koo ak yow day loolu tiis nañu lool wa baka sallallahu alayhi wa sallam yonent bi noonu la jooye li mawti umama binti ibnatihi zaynab keroog ba mu faatoo umama mi nekkoon doomu zaynab di doomu yonent bi fa qiila lahu ya rasulallah ñu ne ko waaw yow mi yàlla yónni atabki ndax da ngay jooy ku dee awalam tanha anil bukaa yow yaa ñu tere woon ñuy jooy ku dee fa qaala innama hiya rahmatun mu ne lii day yërmande la bu yàlla di def jaalaha allah fi qulubi ibaadi yàlla koy def ci xolu ay jaamam wa innama yarhamu allahu min ibaadihi ruhama ña yàlla di yërëm ci ay jaamam mooy ñu yërëmaate kon mbokk dañuy gis ne nit ki am jegeñaale bu faatu ñu wax la ko nga tuur ay rangooñ loole yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa dogal benn doom bu la am ca Madina doom boobu mooy Ibrahim alayhi salaam muy doom bu góor yàlla dundal ko ba mu am at ak genn wàll gannaaw ba yàlla indi mbiram mu feebar sukkuraat ci loxo yonent bi faatu ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nga gis mi nga tuur rangooñ saxaaba yi laaj ko ah yow mi yàlla yónni ah da ngay jooya mu ne waaw waaw bët yi day moom dana tuur rangooñ xol bi it dana am lu ko metti waaye lu ñu wax lu dul yàlla gërëm te mbokk doomu aadama dafa am nature bu ko yàlla bindee su amee lu ko neex day kontaan su amee lu ko naqari day tiisu loolu nature la jullit ak yéefari ci yem amma jullit mooy ki nga xam ni bànneex lu mu tar tar du ko yóbbu mukk mu wax lu neexul yàlla tiis lu mu tar tar du ko yóbbu mukk mu wax lu neexul yàlla toujours ma ngay sàmm ngërëmal yàlla ci xaal bu mën a doon lu mel noonu it la wax keroog bi sëtëm ba di umu umaama nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam umamatu bintu zeynab daana ko gàddu di ñëw ci jàkka ji di jiite sax mbooloo mi yàlla dogal xale bi faatu mi ngi noonu yàlla dogal xale bi faatu mi ngi noonu garab ba muy faatu doom jànk yónnee ndaw na ko demal wax suma papa kii di umama day dafa faatu mu ne ko boo demee ne ko lillahi ma axaza wa lahu ma ata wa kullu cheyin indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tas taxtasib yàlla moom li mu jël moo moom li mu fi bàyyi lu ne da ko wutal dig na muñ ca yaakaar pay ci yàlla doonte ne sallallahu alayhi wa sallam gis nañ ko mu tuur rangooñ li ko sahaaba yi laajee mu ne lii day rangooñu yërmande la yàlla mooy def yërmaane ci xolu ku ko neex ci ay jaamam ki yàlla di yërëm ci ay jaamam mooy ñi nga xam ne dañoo am yërmaande looloo tax ba jurit mi ngi noonu dafay am yërmaande ci ay jaam rawatina mbokk dee da nga yërëm ki faatu yërëm ka nga xam ne moom la faatule ndax tey da ngay gis ku mel ni soxna ëmb ni mu méttee wasin sa doom ni mu la jege mu xëy xëy faatu loolee mbokk da ngay gis lu tiis la moo tax yonent bi alei salatu wasalaam ne lii rangoo ñu yërmande la amma bu dee ñetteelu bind bi ñu war a taxawee ci heure bu nit ki faatoo mooy ñu xam ne tahrimul ihdaad aksara min salaasati ayyaam araamal na ñaawlu ngir nit ko faatu lu ëpp ñetti fan yuxramu an tuxadda al muslima ala mayitin laha aksara min salaasati ayyaam illa ala zawjiha dañ araamal ci jigéenu jullit muy bàyyi lépp luy taar di ñaawlu ngir daa am ku mu deele xanaa lu dul ci borom këram fa innaha taxuddu wujuban arbaata ashhurin wa ashra ku mel noonu day da koy tënji ci loo xam ne farata la ñeenti weer yoo xam ne day teg fukki fan li qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laa tuhaddu almaratu ala mayit du nekk di ñaawlu jigéen ci aji ko faatu fawqa salaasin ci lu ëpp ñetti fan illa ala zawj xanaa lu dul ci borom kër fa innaha taxudd alayhi arbaata ashhurin wa ashra da koy tëñ ji ñeenti weer ak fukki fan ca mbokk mi ngi noonu da ngay gis ne kenn ci soxna yonent bi umu salama la wala kenn ci ay soxnaam baayam daa faatu ñu teg te ñetti fan mu ne kenn ci mbindaanam yi indi ma sama tusngal yi ak sama takkaay yooyu ñu ne ko waaw lan la mu ne dara dama dégg rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne jigéen amul droit di wane ak ñaawlu ci jegeñaaleem ba faatu du doom du baay du yaay lu ëpp ñetti fan loolu moo tax comme ñetti fan yi paase na loolu kon muy wane ni islam maye na jegeñaale bu la gaa bu gaañu la nga wane tristesse mi ngi noonu ci gaañu googee bàyyi taar diirum ñetti fan même bu doon ay jooy xatta jooy yooyu soppuñ ñu koy def gannaaw ñetti fan mooy keroog ba Jaafar faatoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ne ba ko bañ ko waxee waa këram ba pare ba mu amee ñetti fan ca la ñëw ci njabootuk Jaafar mu ne leen nag bu leen jooyati sama rakk ji gannaaw tey gis ngeen ñu bari ci la ñuy jëlee ay dëju ñetti fan fekk xamuñu mu ngi noonu bu ñuy nit deeyee bu ñetti fan yee dajee ñoom ñëpp ñu daje fa rey seen i nag togg seen ceeb yu neex naan seen yu sedd bokk loolu kenn xamul lu muy norul dee suñu borom da koo tuddee la nga xamee ne nii moom mooy musiba tey nag nit ñi dee yi moo dàq mariage da ngay gis dëj yu bari lañ fay wàcc ci lekk ak naan duubul na ñetti mariage yu xewoon ca koñ ba loolu mbokk da ngay gis ak wëlbatiku la ñu ngi noonu ala kulli xaal loolu ñu bàyyi ci xel bu baax quel que soit nit ki lu mu la jegee amoo droit di ñaawlu di wane ay tiis gannaaw ñetti fan yooyee amma jigéen nag moom bu jëkkëram faatoo islam da koy wax quatre mois dix jours doo sol lenn lu ñuy tuddi toilette doo takkaayu doo fuddanu doo tusgalu lépp luy wane toilette da ngay gis ne da nga koy bàyyi pendant ñeenti weer ak fukki fan mi ngi noonu bu dee ñeenteelu mbir bi mooy qadaa duyunihi nit ki bu faatoo nañ gaaw fay ay borom tanbaxi al mubaadaratu bi qadaai duyuni al mayit yey nañu gaawi lool fay bori ka dee in kaana alayhi duyun su dee ne dafa dee yaale ay bor in kaana is kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yamtani'u min as-salaati ala saahibi dayn hatta yuqda daynuhu yonent bi alayhi salaam daana bañ a julli waa ja nga xam ne daa am bor lu dul ne dañoo fay ay borom wa qaala nafsul mu'min mu'allaqatun bi daynihi hatta yuqda anhu daana waxit ne lii di bakkanub julit dees na ko aj ci ay borom ba baa ñu koy fayal ay borom te loolu mbokk kon ngi noonu doomu aadama bi xam ne bokk na ci loo ñu war a bàyyi xel mooy bor yooyee nga xam ne da ko am ñu waxtaan ak boromi bor ya fay leen ko wala ñu dig leen ne dañ ko fay ndax yonent bi alayhi salaam dam daan jàjjee nit ñi ci bañ a jullee borom bor ba histoire bu siiw boobu am ca benn waay ñëw ñu teg ko yonent bi naa bàyyi nay boro ñu ne ko waaw bàyyi na lu tolloog ñaari dinaar mi ngi noonu lu tolloog ñaari dinaar loole mi ngi noonu ndax dana jege ay deux cent mille suñu jamonoy tey yonent bi naa ndax ndax ndax bàyyi na lu mu ko fayee bor yi ñu ne ko ah déedéet yonent bi naa kon jullee leen ko Abu Qatada ñëw ne ko yow yàlla yooyu man gàddu naa bor yi danaa ko fay mu ne ko néew bi mucc na ci mu ne waaw yonent bi doog koo jullee almuhim ñu bàyyi xel ci loolu bu baax amma lim ne bakkanu jurit dañ koy aj ci ay borom borom xam-xam yi bokk na loo xam ni dañ ko tey wax mooy ay xéewal yoo xam ne nii dañ ko ko waroon a teeroo su dee dafa gàddu ay bor loolee dañ koy aj ba ba ñu doog ko fayal bor yooyee loolu it muy wane ne ku yàlla nattoo ay bor war nga ko leeral ña nga xam ne ñooy ñëw sa gannaaw ngir loolu ñu bañ koo nekk di ko sàggane amma bu dee juróomeelu bind bi nga xam ne nii day war ci aji jegeñaale yi seen mbokk faatu mooy al istirjaau wa duaau wa sabr war na leen ñetti mbir yi mooy ñu dellu ci yàlla yanbaghi li ahli almayit an yulzamu sabr fi hadhihi saati bilxusus day yey ña nga xam ne ñooy ña faatule ñu lënkoog ak muñ rawatina ci waxtu woowee natt bi dala seen kaw li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam innama sabru inda sadmatil ula muñ gi yàlla gërëm mooy ca mbëkk bu njëkk ba ca mooy dal gu njëkk ga mi ngi noonu ca mbokk la chàkk ne doomu aadama bi ak koo mën a deele balaa ren di déwén nga toog di waxtaan di lekk ka naan di continuer sax sa programme ak ku mën a doon doomu aadama day fàtte kon fa yàlla gërëmee muñ mooy fa natt ba bees ci yow nga daa di dellu ci yàlla ci yàlla tax bokk na ci it wa an yuksiru min addu'aa'i wal istirjaa ñu bari lool di ñaan di baril di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ma min abdin tusibuhu musiba fa yaqul nee na amul benn jaam boo xam ne natt da koo dal mu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun dey yàlla moo ñu moom te ci yàlla la ñuy dellu allahuma ajirni fi musibati ay yàlla yàlla nag ma bindal pay ci sama musiba bi wa xuluf lii xayran minha te wuutalal ma lu ko gën illa ajarahu allahu taala fi musibatihi lu dul yàlla dana ko bindal ay pay ca musibaam boobe wa axlafa lahu xayran minha ca wuutal ko la nga xam ne moo ko gën mi ngi noonu mën nga caa dolli ba tey qawlihi taala yaqulu llahu taala maa li abdil mumin du ñeel mukk sama jaam bu gëm indi jaza ci man ci pay gu ma koy paye ida qabattu safiyahu min ahli dunya su ma jëlee ab soppeem ci ñooñu àdduna summa ihtasabahu illa aljanna mu daa di yaakaar fay ci yàlla lu dul yàlla fay ko àjjana bokk kon ki nga xam ne daa faatu war naa baril di ñaan di ñaanal néew bi du dee na allahuma agfir lahu warhamhu allahuma agfir lahu warhamhu gannaaw ba di bari di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ah yàlla day sama natt bi dal ma yàlla na nga koo def ay pay yoo ma koy dencal te yàlla na nga ma wóotalal lu ko gën yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na fokk yàlla bindal ko pay uutal ko lu ko gën te it borom bi mu ngi ñu wax ni ñooñu nga xam ne dañuy faatu di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un suñu borom mi ngi leen jagleel jagleel ñeenti mbir mbir bu njëkk ba dane bashiri sabirin muy mbég bu leen yàlla di bégal rawatina bis bis buñ dajeek moom yowmal qiyaama moo ñi nattu dal ñu ne inna lillahi inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatu min rabbihim mooy ñooñu yàlla dana leen gërëm wa rahma yàlla dana leen yërëm wa ulaika humul muhtadun ñooñu yàlla dana leen jubal kon la nga xam ne mooy al bushra wa wa wa salawat wa rahma wal hidaya mbég ngërëm yërmaande akum njub dana ñeel képp koo xam ne bi nattu dalee sa kaw da ngaa yëg ne yow kat jaamu bi yàlla nga mooy def ci yow la ko soob te it gëm ne ci yàlla ngay dellu ca payyama nga la fay xaar lu dul yàlla jagleel le jagleel la loolu rawatina nag boo deeyee boo boo boo boo deelee mbokk boo deelee firilah alhamdu suñu borom yàlla ci li yeneen ci may som nettali waxul su ma jëlee sama yaayu jaam sama doomu jaam sama nangam jaam waaye def na safiyuhu ab soppeem loolu xarit yaag dëkkandoo yaag ñépp dañ ci dugg képp koo xam ne ci kaw suuf amoon ngeen kóllëre di wéttalante di jàppalante ak yu dama doonu suñu borom xëy faat ko nga muñ ko ci yàlla tax loolee da lay jural ajjana amma bu dee ne lu mel ne doom moom junjoon nañ ko ci darsu dimanche bi passé nga xam ne moom ci spécial yi la bokk heure boo ko muñee muñ gu rafet sant yàlla yàlla ne malaaka yi tabaxal leen ko kër ci àjjana ñu tudde ko kërug cant gi ngiree doomam doomam ba yàlla jëloon mu daal di koy muñ la nga xam ne mooy muñ gu rafet kon juróom benneelu mbir bi nga xam ne nii danay war heure boo xamee ne nii ab julit faatu na ida maata almuslimu sagiran aw kabiran wajaba taxsiluhu heure bu faatoo ab julit xale la wala mag la wareef la ñu sang ko sawaun kaana jasaduhu kaamilan aw kaana baaduhu faqat na doon yaramam ba gis nañu lépp wala lenn ca yaram ba la ñu gis walazi la yugassal min mawtal muslimin ña nga xam ne kenn du leen sang ca ña faatu ca julit ña huwa shahidul ma'raka mooy ka dee ca toolu jihad ba allazi saqata qatilan bi aydil kuffar koo xam ne daa dee dafa rot doon aji faatu ca loxo la nga xamee ne nii moom mooy loxo yéeféer ya fii miidaanil jihaad ca ëtt bañ doon jihaate fi sabilillahi taala ci yoonu yàlla li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam laa tugassiluhum bu leen leen sang fa inna kulla jurxin aw kulla dammin yafuuxu miskan yowmal qiyaama ndax bépp jam-jam wala bépp deret dafay génne la nga xam ne mooy xet goo xam ne ni xetu misk lay doon la nga xam ne mooy yowmal qiyaama kon mbokk fii day wax ne jullit dañ ko war a sang ca mooy ki nga xam ne dafa juddoo bi mu juddoo mu indaale bakkan kookee borom xam-xam yépp dëppoo nañu ne dañ koo dañ koy sang ixtilaaf nag am na ci bu dee daa judd indiwul bakkan nag am ca ñoom ñu ne su dee ne ëmb ba paase na ñeenti weer mënees na koo sang donte ne ñeneen ña rawatina mazhab Malik dañ ne bu indul bakkan moom dañuy gas rek sul ko ala kulli xaal dañ ko war a sang na doon dañoo gis yaram bi lépp wala mu am luñ ca gis am na ca ñenn ci ñoom dañ ne bala ñu ko sang ñu gis la ëpp te bu dee ne ab tànk lañ gis wala ab loxo loolu lañ ciy suul rek waaye bu dee gis nañ li ëpp dañ koy sang almuhim loolu ñu bàyyi ci xel bu baax amma ki nga xam ne kenn du ko sang mooy tey jullit ñi di xeex ci jihaad fi sabilillah nga xam ne dañoo jóg ngir kàddug yàlla jëm kaw bokkul ak xeex yoo xam ne xeex yi àdduna la ñiy jihaad ngir kàddug yàlla jëm kaw képp koo xam ne dafa dee ca toolu jihaad ba ku mel noonu kenn du ko sang dañ koy muur rek suul ko yonent bi alayhi salaam mu ne deret joju di génn ci moom dafay ball dëttu misk yowmal qiyaama loolu nag bokkul koo xam ne dañ ko faa jam ay jam-jam ñu indi ko ci kër gi mu doog a faatu kooku ba tey shahid la waaye dëgg-dëgg shahid moom mooy ka dee ca toolu jihaad ba mi ngi noonu ki génnoon ci armée islamique ji dem dee ci yoon bi dafa shahid ak fa bari na ay shahid ci lislaam waaye dëgg-dëgg shahid mooy ka dee ca tool ba ànd ak yéeféer yi ci seen bopp ñoo ko rey ku mel noonu kenn du ko sang dañ koy suul directement lu bari ci borom xam-xam yi sax dañ ne kenn du ko jullee mi ngi noonu amma gannaaw loolu mooy juróom benneel boobu bu ñu xoolee ci juróom ñaareel bi mooy sifatu xuslil mayit naka la ñuy sange ab néew te loolu mooy problème numéro un ci waa Dakar mu ne law ufriga al maau ala jasadil mayit bu ñu sotti woon ndox ca yaramu ko faatu wa zalika xatta amma al maa ata amma al maau saira sairu sairuhu ba ndox ma ëmb yaramam yépp la ajza a zaali loolu doon na doy walakin sifatul mustahabba alkaamila hiya waaye nag melokaan ba gën a rafet ba gën a mat mooy ñuy def lii mu bëgg a wax loolu moo tax ba ngalawaay mbokk jullit jullit amul droit wax ne mënuma sang néew mbokk sang néew farate bi ci am mooy ni ngay sangoo rek ndax jullit am na droit wax ne man mënumaa sangu loolu boo ko waxee dañu da ngaa dof mbokk mooy sang néew mooy lan indi ndox mi raxasal bopp bi ba tànk yi jeex na lii mooy farata bi lii mooy farata sang néew jàpp naa ay xale yu am 10 ans sax war nañ koo mën def mooy sangu néew benn farata moo ca am mooy nañu raxas néew ba ba mu set jeex na lii mooy sang néew li ci des yépp ay sunna la ak lu ñu sopp kon ku ne war na koo mën a def malheureusement dañuy teg néew dem hôpital tel dem cimetière tel fu la ñu dem fa di wër kan mooy sang loolee mbokk ñàkk xam mënta passé loolu da nga noonu su ko defee nag bu doon te ne ne dañ ñe nan la gën a rafete mu ne an yuuda al mayitu ala shay'in murtafi'a nañ jël néew ba teg ko ci place bu xaw a kawe wa yatawalla xuslahu aminun saalix ñay ñëw di ko sang it mu féetewoo ko koo xam ne dañ koo wóolu te mu doon nit ku baax li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam li yaxsala mawtaakum almamunuun almamunuun ewaay nay sang seeni néew ña nga xam ne dañ leen a wóolu ndax mbokk jullit léeg-léeg suñu borom yàlla suturaal ay jaamam waaye léeg-léeg suñu borom yàlla feeñal ci ay néew musiba ak li nga xam ne dañ ko doon def ci kaw suuf témoignage yu bari ñëw na ci ñoo xam ne ba ñu dee seen kanam yi dafa soppeeku ñuul kukk ñoo xam ne mandarga yu garaaw gis nañ ko ci ñoom lu mel noonu nag même bu amee yow mi fekk loolu danga ko war a suturaal mu ngi noonu gannaaw loolu mu ne fa yasura batnahu bi rifqin lama asa an yaxruja min minhu min aza bu dee ne néew bi jël nañ ko ba tëral ko suñu mënoon yëkkati ko tuuti rek daa di bés biir bi nank nank nank ngir la ca desoon ci ay déchets mën a génn summa yaluf ala yadihi xirqa gannaaw ba mu takk ci loxoom la nga xam ne mooy ab morso jamono ji yàlla wërsëgal nañu ay gant wa yanwi xuslahu yéene nag sang gam kay sang doonte ne lii lépp dafay ànd ak sutural awraam ab julit kenn du ko teg rek na fàng noonu du ko sang déedéet dañuy jël benn morceau boo xam ne dañ koy teg mu sutural diggante jumbaxam ak oomam su dee ña koy sang ñu ngi noonu ci góor ak góor jigéen ak jigéen mu yéene sang ga su ma yaxsilu farja gannaaw ba mu raxas payun ka nga xam ne moom lay sang ba mu set wa ma bihi min aza ak lépp loo xam ne nekk na ci ci ay ay ay sobe summa yanziul xirqa gannaaw ba mu dindi lam laxasoon ca loxoom wa yuwaddiuhu wudu as-sala daa di commencé nag jàppal néew bi comme ni ngay jàppe booy julli mooy lan raxas nga kanam gi bu nga jëlee tuuti ndox dugal ci catu bakkan yi wàccee jël sa baaraam dugal ci gémmiñ gi noonu raxas kanam gi raxas loxo yi ndeyjoor càmmooñ masa bopp bi dem raxas tànk ya comme ni ngay jàppe booy julli gannaaw ba su ma yaxsilu saaira jasadihi baadiyan bi alaahu ila asfalihi gannaaw ba nag mu raxas yanamam yépp jóge ca kaw jëm ca suuf yaxsiluhu salaasan daa di koy raxas ñetti yoon doonte ne ni waroon naa waxit côté ndeyjoor la ñuy jëkk a commencé doo ko raxas càmmooñ yooyu yépp lu ñu sopp la lu ñu sopp la waaye du farata wa in lam yaxsulu naqaau xasaluhu xamsa su dee ñetti yañ ko sang gis nañ taxul ba tey mu set ñu ne a kon nañ ko raxas juróomi yoon wa yaj'alu fi lxasalati al axira saabun wa naxwuhu ca la nga xamee ni mooy sang yu mujj ya ñu boole ca saabu ngiree mu set donte ne bu jëkk siddiim lañ ko daan xëbal di ci boole am na ñu koy barkeeloo ba suñ jamono yi tey wa in kaana al mayitu muslima su dee nekk faatu daa nekk jigéen nag nuqidat dafairu sha'riha wa gusilat dañoo ware firi la nga xam ne mooy ay léttam daa di raxas bopp ba summa uida dafraha gannaaw ga ñu daal di delloo létt ya daf ko ñetti létt is amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yafala bi sha'ri ibnatihi hakaza yonent bi alayhi salaam keroog ba doomam ja Zeynab faatoo noonu la waxoon ñoom Ummu Atiya ña ko doon sang ñu def noonu suma yudaw alayhi alxanuut gannaaw ba ñu daal di teg ci moom ak gët ak tiib wa nahwihi na doon parfum la wala lu mu mën a doon ci façon cuuraay yi nga xam ne dana ko indil la nga xam ne nii mooy xet gu neex kon mbokk jullit jàpp naa mënees na doy loo loolu ba suñu borom yàlla dajalewaat ñi fi yal na yàlla wërsëgal ñu bis bu ñuy dajeeg moom mu jagleel ñu njéggalam ak yërmandeem nañu yàlla wërsëgal ay taxaw yu ñuy taxaw na sunna bëgg ñu taxawu ko ay néew wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ah waaw loolu moom na ci droit sëy nekkul loo xam ne ni dañ ne farata la lu dul koo xam ne nii gis na kum sëyal ragal na tabbi ci njaaloo moom bu ko wóoree ne moom man kat du ma dem ci njaaloo kooke am na droit ne du sëy ca la nga xam ne mooy gannaaw borom këram rawatina lenn ci ñi nga xam ne dañoo jàpp ne nit ki ki mujj sëy lay àndal yowmal qiyaama bokk na xadis bi ñu wax ci Umu Darda ñu ne bi nga xamee ne Abu Darda faatu na moom dane du sëy gannaawam ndax dégg ne Abu Darda nee na jigéen ki mujj see lay àndal yowmal qiyaama ca moom abu darda du ko weccee benn góor allahuma lu dul wax nañ fii ci tafsiru passé ci waaqia bi ca ni rasul sallallahu sallam ba ko yaay umu salama laajee daf ne jigéen bu àndeek borom kër yu bëri dañ koy tànnloo yowmal qiyaama ca bu boobaa day tànn ko gën a rafet jukko liñ ci bëgg a wax daal mooy soxna si bu ragalul njaaloo ci boppam am na droit ne du sëy mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam waaleykum salaam wa rahmatullah dafa dégg ne bu seen dëkki kaw yi bu dëj amee dañ koy yëgle ci jàkka ji lu ci sharia wax ala kulli xaal bu jéggi day amu ca loolu dara nekku ci dëkki kaw gi ñëpp a xamante lu ci bëri sax ñëpp ay mbokk lañu donc nit faatu ñu ne ah mbokk yi diw day faatu na heure sàngam lañ koy denc bu dee ne foofu rek lañu yem loolee moom dara nekku ci li nga noonu sunu jàkka ji daan julli ba pare ñu ne ah diw faatu na ñaanal leen bu ca jéggi day amul daal jéggi day amu ca bu yemee rek ci yëgle ba mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala kulli xaal mbokk waaw almuhim xam naa comme ci li ñu doon wax rek ci wàllu sangu néew la nga xam ni itamit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne ki nga xam ne dafa sang mbokkum julitam suturaal ko yàlla dana ko jagleel ñeen fukki njéggal loolu it muy wane ni nekk na ci tuyaaba ju rëy mooy yow jullit nga sang la nga xam ne mooy sa mbokkum jullit sang boobee itamit na nga xam ne ña ca gënoon a yey mooy awalan waaja faatu kan la ñaanoon mu sang ko kooku moo ca gënoon a yey loolu moo tax ba kii di saxaaba yu bari dañ daan xool ni ñu wóolu seen biir ñu dénkaani ñu sang leen gannaaw loolu ay jegeñaaleem ñoom ñooy ña nga xam ne ñoo ca gën a yey ay jegeñaaleem ñoo ca gën a yey su doonte ne ne way dencante lañu comme niñ ko nar a jàngee ci dimanche bii di ñëw dañu xam ne jëkkër mën na sang jabaram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la waxoon yaay Aïcha boo ma jëkkee dee danaa la sang danaa la jébbal sa boroom yaay Aïcha moom it loolu la doon wax mu ne man day li ma mujj a xalaat su dul moom laa jëkk a xalaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn du ko sang lu dul ay soxnaam loolu la tax ba keroog bi Fatima faatoo ki nga xam ne moo ko sang muy Ali ibn Abi Talib keroog bi Aboubacar faatoo ki nga xam ne moo ko sang mooy soxnaamu asma ibnu umaysin mi ngi noonu dimbali ko ci abdurahman ibnu awf almuhim kon loolu di ngay gis ne islam gërëm na lu mel noonu doomu aadama yi di ci nekk di ci jàppalente di ko def te yàlla rek a tax bañ koo def métier di sang ñu lay fay waaye di ko def ci yàlla rek a tax ndax la ci suñu borom yàlla jege yàlla rek moo xam ñiin fukki njéggal gu la yàlla nangul ah loolu lu am solo la lool ndax say bàkkaar doomu aadama bi xamoo say bàkkaar yàlla yàlla baalul nu mu toll kon nag bu la jaglelee ñiin fukki njéggal loolee moom ay ngëneel mënu koo ngëneel mënu koo paase naam naam bismillah ndax góor dana sang waajuram bu jigéen bu faatu déedéet waajur bu jigéen bu faatu ay jigéen ñoo koy sang allahuma lu dul lenn ci borom xam-xam yi te it lenn ci mazhab Maalik yi ñoom saxal nañu ko mooy jigéen bu faatoo foo xam ne ay góor rekk a fa nekk gisuñu benn jigéen kii nga xam ne mooy maxramam mën na koo sang gannaaw ba mu ko muuree kon nit bu dente dañoo gis ne waajur bu jigéen ba daa faatu amul kenn kenn ku ko nar a sang ku ko mën a sang bala ñu koo suul te sanguñu ko ka nga xam ne mooy doomam wala fréeram ku mel noonee dana ko mën a sang ci gannaaw la nga xam ne moom mooy muuraay gëm ko muur allahuma bu doon la ëpp ci borom xam-xam yi nag dañ ne ku mel noonu dañ koy tiimal incha allah mooy dars yi nar a jàng bu ñu fi yàlla dajalawaatee dimanche bii di ñëw naam mbokk jullit yàgg ah mu ni dajaloo ba ñuy dajaloo ci kër gi faatu bu dee dañ koo jublu loolee islam nangu ko bu dee dañoo jublu rek ne bi sàngam lañuy la ñuy xew di ko dajaloo islam nangu amma nag bu dee dañoo ñëw ñii ñëw jaala dem ñii ñëw jaala dem ña nga xam ne dañu faa daje ci jubluwuñ ko islam du bañ loolu islam daal li muy bañ mooy dajaloo boo xam ne da ngeen di ñëw toog rek toog ngir nit ka daa gaañu dañ koy toogaanu li war mooy ku ñëw dem ku ñëw jaala dem ku ñëw jaala dem lii ñenn dong ñoo am droit di fa toog mooy ñi nga xam ne dañoo sus ci néeg bi ñu war leen a jaale waaye yow mi nga xam ne da ngay jaala rek soo ñëwee jaale ba pare da ngaa war a dem sa yoon mi ngi noonu wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain